ينكايك على جحمد ايدغا بسم الله سيسو سيسو يا مولاي لك عيني عندك عيني abon bu la boo xam ne day yàgg rek waaye dina ma sëkkalaate de mar di taali waaw parce que Cheikh Yérim Seck ah, nee na ñetti ci ay ministre laa lay wax ni la waa FBI kon ñu ngi leen bàyyi bët laa ilaha illallah journaliste ba Cheikh Yérim Seck yama ca c'est exclusive yéene kaay waaw nee na suñu ministre de la justice ne da cay tax ne rib yéene kaay ne waaye cabinet maître Malick Sall boobee waaw daal dinañuy weddi ba pare rek daal dinañuy menacé kii di Cheikh Yérim Seck laa la wax boo sàgg ne tribunal lañ ko jëmee de critique yéene kaay ne loolee kay am na parce que Cheikh Yérim Seck kon dañ koo convoqué tey jëlee te gendarmerie enquête yéene kaay ne dëgg la bis googee waaw Cheikh Yérim Seck dama ne dañ koo convoqué ji la côté gendarmerie tribune yéene kaay de onze heures lañ ko convoqué brigade de recherche ndaw guerre beneen guerre de am na nag diggante ma jamal jaaj yaa xam may exclusive waaw ma ngay yàq na kii dama jamal jaaj maa ritaali parce que yaa xam may ci réew mi ko tëjee waaw nee na ma jamal jaaj wax lii mi ngi naqaru naan kon suuf si lañu koy caxat-caxatee mais moom ma jamal jaaj moomee lu tolloo juróom fukki Ngor Almadi ak Dakar tribune yéene kaay ne ginnaaw Dakar ngaa jël joob de waaw suuf yi nga xam ne kon ñoo nekk ca diwaanu Kaolack jële ñu ngi koy jaxat-jaxatee de en tout cas maire bi di Ousseynou Samar ak Mohamed Ndiaye Rahma waaw ñu ngi leen di jam kon baaraamu tuuma de laas de dañuy jaxat-jaxatee nag maanaam kon littoral bi de Ousmane Sonko ah nee na bu yàlla dogalee mu daal di falu président de la République waaw lu fa waay tabax dana ko daaneel loolay dëgg enquête yéene kaay ne musiba mbaaba ko ma dee scandale foncier wàllum suuf sa jas lu doloo juróom fukk ak juróom ci ay hectare lañu teg teg loxo laa la wax laa ilaaha illallaah dama ne la benn projet la promoteur bi de Mamadou Fall waaw dama ne la projet boobee soppi nañ ko ay kër daal di koy jaay eh way Samba eh way Samba ci premier tour beeg deuxième tour élection présidentielle 2012 waaw ca la ko Abdoulaye Wade kon déclassé woon moo taxit kuréel gi njaboote waa bu xugoo ga nee nañ dañuy plainte nag maanaam ca OFNAC meeru jas ci boppam kon la ñuy plainte laa la wax critique yéene kaa ne waa banlieue ba tamit daal dana ñuy fipp dëgg la ba nuppi ne daal danañuy sax ci président Macky Sall mi la ñeenti hectares yi nga xam ni kon moom la jébal ma magistrat yi de te filaawo Macky Sall na ca dellu ginnaaw laa la wax looloy dëgg de enquête yéene kaay de dañuy taxataxatee kon wàllum littoral bi suuf sa de waaw waa Géejawaay yëmbal Malika Tivaouane Peulh lëkkaloo nañ de coalisé nañu de direct news de kuréel googee de aar suñu suuf aar suñu littoral tudd des banlieues dëgg la daal dinañuy woo président Macky Sall mi de mu jël na dogal yii nga xam ni kon moom lañ koy bëgg a wax waa banlieue ba daal xamal nañ Macky Sall ne ko ñeenti hectares yi nga xam ni kon moom nga jébal magistrat yi de dellu ca ginnaaw boobu benn ñaar suuf bi nga xam ne maanaam kon nañu koo jébal wala di ko waaj a mu toll ci vingt hectares ñoom syndicat des secteurs des domaines waaw Macky Sall ko da ca dellu ginnaaw ñett santaane rek ab audit ci yorinu suuf si ak direction générale des impôts domaines ñeenteel ba mooy liggéey bi nga xam ne kon santaane woon nañ ko te ca yi nga xam ne kon na mën nañ koo indi ci wàllum suuf si di commission nationale des réformes foncières waaw mais liggéey ba jeudi 18 quatre heures ca ngoon seize heures foo ay waxi nan la ca géej waay gii fop waaw so xameel war di ni de meeru Ndakaaru Njaajël Jóob ci l'Observateur nee na Cap Vert Ndakaaru Njaajël Jóob la léegi Cap Vert la woon léegi Cap Béton ndax ni ñu agressé kon littoral bi laa la wax libération bi de waaw maître Malick Sall ministre de la justice a ah, nag ñu topp ay doomu aadama kon kanamu tribunal bi lé looloy dëgg ginnaaw nag suuf si kon nañu ko caxa daal di koy ubbil libération yéene kaay nañu ci ñetti fan eh, anam jël na juróom ñaari bato chinois wutal leen kay tudd Sénégal tey licence de pêche la ilaha illallah réew mi quotidien maître Malick Sall de waaw amul lu mu bàyyi laa la wax ci njabootu jag jag gi dossier bu gëstu rek lig Nicolas bi de indépendant de la justice ministre de la justice de maître Malick Sall waaw nee na Massata Dia du ko yóbbu ca bitim réew laa wax di ko extradé mukk bu gëstu nag jàpp leen contrainte par corps su fayee tey suba mu génn ci kaso bi maître Malick Sall ne indépendant de la justice xanaa xamoo leen ne Macky Sall mi lée magistrat yu bare bari xamu leen laa la man mii dee ba ma toogee ministre de la justice ba léegi man Malick waaw musuma woo benn magistrat naan ko wala dossier bi ci àddina yéeni ne ubbi te classe yi école bi ubbi alhamdulilahi rabbil alamin reprise imminente parce que Mamadou ministre de l'éducation nationale examen yi ñoo njëkk a ministre de l' nationale de eh, Mamadou Talla daal dalal xel ya te ministère de la santé ci boppam day dana d' na ci loolee nga xam kon moom la Talla def maanaam ubbiwaat école yi waaw ndax fii mbas mi toll tey le soleil yéene kaa ne dafa dee bi rek lu toll ñaari téeméer ak ñeent fukk ak ñeent ci ay doomu aadama wér nañu source ade waaye nag am ci ay gox yu bëree bëri ci Ndakaaru ngaa jël jom ji lee mar de nee leen bas noppi waa seen o ñu ngi def lu leen neex les ko yéene kaa en tout cas justice de waaw nee nañ compte mu accusé yëpp dañ leen ko saisir maar day taal yi 24 heures yéene kaay ne en tout cas Mamadou Matar Cissé de ministre énergie pétrole waaw boo déggee ñu naan état ak république moom la waaye président de la république la yorin gu bees ci alalu askan wi la ci lay yëngu yéene kaay gi ne kaay leen ñu xool jaar jaaru Matar Cissé waa ji def na douane dugg na cabinet ministère de la pêche nekk na présidence de la république 2009 doon na njiital douane gis nañu résultat yi laal na ministre budget nekk na njiital Sénélec te la coupure courant yi dem ne ba mu ñëwee ministre pétrole ak léegi di la gis nañu nag li Matar Cissé def kon ca Taïba Ndiaye général Sangomar ñi ko ragalee wàllum politique ay Matar Cissé ci 24 heures waaw nee na ma ni inspecteur général d'état la man kenn mënuma sànni carte kenn mënuma fal xanaa kon wax day jeex Dakar Times te scandale am na ci créé yi ba dee ah, waaw waaw Sénégal de li mu dépensé kon ci wàllum créé boobee gañewu ko ca de waaye la gën a ragalu dee mooy alalu Karim Wade bi ñu waxoon yëpp ak nañu tuumaal Sénégalais ne tey li ñu bëgg a xam mooy fan la oto yi Karim Wade yooyee jaar CD Média Group ak un média groupe ay canal info yooyee le pays le sénégalais point net ana matériel ba te enquêteuru section de recherche yi tegoon ca ana alal ja doy waar li doy waar kay direct news nee na ngeen fukk ci ay soldat la jihadiste yi kon ci ñetti fan ci Afrique de l'Ouest waa njiitu réew Afrique yi moom seen pataaral gi lii lan la premier yéene kay de Jean Paul Dias de ba mu nekkoon jugu fa de déedéet nee na gis nga Macky Sall mi ne dana jéem nag ab troisième mandat yaa ju wala maa ju Jean Paul Sall nag ak lu mu jéem troisième mandat troisième mandat troisième mandat troisième mandat bu mu fàtte pétrole bi rek parce que suul gaz su ko teree xëy te troisième mandat boobu cirë ngeen jëw fa cekkeen di ca kër Cheikh Yérim Seck yéen kay yu bari ñu xëye ndool fa la ñu xëye l'observateur libération yëg jërë ngeen jëw fa cekkeen di ca kër Cheikh Yérim Seck yéenekaay yu bari ñu xëye ndool fa la ñu xëye L'Observateur Libération Tribune ak Le Quotidien ñoom ñëpp xëy na xamal ne journaliste Sen Afrique ba woon di Cheikh Yérim Seck ma nga ñu woolu ca gendarmerie L'Observateur nañu waaye bi ñu ko laajee lu xew ba tax gendarme yi ko li mu leen tontu moo di laaj ngeen mbott ab geenam L'Observateur mi ko laaj loolee teg ci di ñu xamal li tax ñu convoqué bu ñu naan demee ca télévision 7TV fa la waxee la tax ñu woolu ko ndax dane sandarma yu section recherche yi ba ñu demee di perquisitionné kër famille Fares 650 millions fa fekk wax nañu lu taxawul la fa fekk ëpp na ko ñeenti milliards la fa fekk l'observateur nañu procureur de la république Serigne Bassirou Gueye ba mu yëgee loolee ca la sant waa section recherche bu gendarmerie fédérale bu ñu ubbi ci enquête ngir xam loolee Cheikh Yirim Seck di wax ana lan moo ci am dëgg-dëgg gàlle ci seenu ndodd mu wax ne ci dossier boobeet loxob ministre de la justice garde des sceaux di maître Malick Sall génn ci mu di loolu la tribune nee nañu cabinet bu ministre Malick Sall nee nañu du dëgg te tuuma Yirim Seck yooyee duñu ko bàyyi mu jàll ñu jàll ci libération gis fay li tax ñu convoqué Cheikh Yirim Seck ca brigade de recherche bu gendarmerie fédérale xibaar boobeet ku xool xët mu njukk enquête man ko faa jànge njàng mi ci réew mi di éducation bi ko dénk di Mamadou a dégg mi ngi def lu mu mën ngir waajal ubbi teg école gi ne jàpp na ne ginnaaw ubbi nañu jumaa yeeg jàkka yeeg église yi ubbi hôtel yeeg restaurant yi yombal dem bég dikk bi mu di ci jaww ji di ci jéeri ji kon jot na sëkk ñu xool nu ñu mën a ubbee l'école yi ba élèves yi mën a jàngi ndax ëllëgu gone yi ci la wékkee li des kay moo di jël matuwaay yi war ba élèves yi bu ñuy jàngi ba jàngalekat yi di jàngale ji ñu bañ a am benn jafe-jafe libération nañu élèves yi war a def examen léegi tey ñu ubbi leen seeni classe ndax ministre éducation nationale di Mamadou Talla mook ñi mu àndal ñoo nga cey liggéey bu baax a te yàggatul li yàgg ci njàng yàgg ci jàngalekat yi réew mi bay bëgg a sëxin journal l'info nee nañu mooy diggante enseignants yi ak xaalis ñu bari li ñu leen bàkke moo di enseignants yi dañoo bëggub dërëm yéenekaay bi nañu waaye bi ñu ci waxtaanee ki jàngalekat yu nekk ci enseignement supérieur bi moyen secondaire ak élémentaire ñoom ñépp a fa xas wax joojee yéenekaay bi tegal ñu ci ne liggéeykat yi ci fonction publique bi jàngalekat yi ñoo ci ëpp ndax mat nañu junni ak ñaar fukki jàngalekat li ñu dikkee état bi mu di seen masse toll na ci cinq cent vingt milliards at mu nekk coowal suuf nekk ci dëkk bi journal Sud du Quotidien xëy na ca gës bu yàpp dee coowal suuf rekk ci réew mi ca jas fa la ba téeneen ndax am na fa lu mat juróom fukki hectare ak juróom yoo xam ne ay nit ñoo ca teg loxo mu di suuf soo xam ne Abdoulaye Wade ba muy doon président de la république moo ko déclassé woon ci diggante ñaari tuuru élection yu 2012 yi mu tolloon ci téeméeri hectare ak fukk waaye lépp gaañe sàkkal nañu ko pexe ba ci projet bii di projet futuriste te promoteur bii di Mamadou Clédor Fall moomoon ko projet ba ci ay kër ak i pàkk ca la mujj ak i léegi ñu toll mujj naa wex xàtt ci moom lise ko nañu gila yoon du diggam ak Senelec mbaa liggéeykat ya ca Senelec waaye moo ko beneen société bu ñu naan Wadgo la juróom-benn fukki million ak juróom moom la wat goo di toppee ak Akilee ndax ñàkk respecté contrat bu ñu séqoon mu jëmoon ci achat logiciel économie d'énergie yëf yegg na ci yoon ba justice ne bépp cont ba Akilee moom nañu ko sisir teg ca loxo bu sëf jekkee loxo jóg ca coronavirus bi dara réew mi ba léegi moo fi mbambu l'observateur xëy ca xooli ñenn ñu masa coronavirus te yàlla def ñu wér ca ñu bari ci ñoom xamal nañu journaliste l'observateur yi ne bu ñu wéree ci yaramit wéruñu ci xel ndax bët bi ñu leen di xool ci réew mi am ca ku ci xamal waa ne nit ki bu ab sagam sàggee ko néew la buy dox am ca keneen ku leen waxit ne moom corona na ba wér waaye li muy dund tax na léeg-léeg xaru rek mooy nekk ci xel mi